Pour avoir des informations claires, fiables et rapides, Qu'il est pour le Sorodini Akiyomori. Tout ce qui concerne l'actualité nationale et internationale, lépp pour soxal xibaar yi biir réew Abonnez-vous à abonneel chaîne bii di ASG Production Ahmadou أعوذ aouzu billahi mina sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim ginnaaw bi leen nuyo wat ziarat leen donte ziar du doy ñoy wat fi dans la même lancée andak sunu mbokk talibé muy wa daïra mam Cheikh ibrahim Fall soppee mam Cheikh ibrahim Fall bu Touba Ndiréen ñu nek fi ci ndiren nima ko waxé tout à l'heure ñu nek ci ndiren muy ben ci dëkk yi nga xamni

nga xam ni ñoo bàyyee ko joal fajuk. muy jëf ju màgg wax dëgg fa ju am solo eh, niko ko waaw muhtadin kansul moxtadin waaw daayra kansul touba joal ñu anda ànd ak sunu mbokk talibé di soppee maam sidi fall ibrahima fii ci eh, touba muy jëf ju am solo ndax na ko maam sidi fall ibrahima waxee woon rek eh, daf ni woon adoom ñi bokk teen ñooy laxasooy goj kon la ci bokk gi nu bokk ten bi bokk fi ñuy rootee muy maam Sidi defaal Ibrahima ginnaaw bi nu siyaaree jëwriñ bi nga xam ni ñoo nekk fii ci waañ mi yore lépp luy bernde jëm ci bile bis muy cant maam si Fall Ibrahima sëñ Abdoulahi Diop ñu ngi leen di jëlee siyaar. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ala nabillahi sayfillahi saydina nur rasulillahi barki borom Tuubaa mm-hmm. noo ngi nuyu ñëpp bu baax. di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. jiital si nuyoo bi sëriñ Muntaxa mhm. ak sëriñ amni ni Modou Menda Fall mhm. leen ñaanal mhm. ku si ne li nga bëgg a sa nga am si lu kawe sa njot di nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu waa Ndiireen waaye di ko jaar si suñu mbokk taalibe bi di sëñ Moustapha Lay di ko ñaanal tawfeex gu yaatoo yaatu macha allah Xadim euh, nuyoo bi mattala na am na solo euh, di leen jaajëfal bu baax ni ko waxee léegi jëf ji dafa rëy euh, ngir liggéey yëpp noonu la ndax ndegam kenn ki bi nga xam ne naar bi bu ñëwee laaj ku baax ki ne ko nii ana lan moo waral soppante gi ak bëggante gi nekk seen biir ku baax ki da ni ko dama leen a boole lu mu séddoogul ah, naar bi ne teg ab diir mu ni ko sama jëmm ji laa leen boole te séddooguñ ko moo waral boole gi kon eh, ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw euh, loolee waaye nag euh, ñàkkul ne am na sabab bu boole daayira bi di Kanzul muhtadin ak soppee maam Sidi Fall Ibrahima ci loon bëggoon nga ñëwaat ci tuuti rek lu waral tey ji seen teewaay fii mm, waaw li ko waral de weesuwul liggéeyal sëriñ bi mhm. ndax moo ñu fi andi Ta ñi ñi ñun ñi ànd ñëpp ak taxit ñu ñoo fi ndax eh, liñ naan tàgg boo gis dina am jàppal diw mm. man ta ñàkk si ñëw ndiireen xëy na daayira Kanzul muhtadin Touba Joal mm. fa lañ jógee mm-hmm. Mm-hmm. waaye nag ñu ñëwaaleel mbokki taalibe ya fa nekk yëpp muy daayira ya fa nekk yëpp muy fédération ya fa nekk yëpp ndax sa maam daf daan wax ne ñaari sëriñ Touba amul benn sëriñ Touba moo am te Moustapha mi tax ñu ñëw fii bu ñëwee Joal li muy dundal fii rek lay dund foofu te mooy sëriñ bi loolu it moo ñu fi andi weesuwul ñëw fii ànd ak moom liggéey bii ñuy liggéeyal sëriñ Touba comme niñ koy defee Joalo waaw nga xam ni yëngu yeeg dox yeeg lépp maanaam liggéeyal Serigne Touba rek lañ see jublu te ñi ñu ko defee fii it moom bu ñëwee jiwaalo noonu lay ànd ak ñun waaye di ñaanal it bu baax ñoo xam ne mënuñu leen a bañ a ñàkk tudd fu ñu dem dañ leen di tudd muy suñu jëwrin ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéeyal Serigne bi muy ku mel ni Baye Cheikh Mbaye mm-hmm. euh, Baye Jibi Diaw ak Serigne Cheikh la ñooñu yàlla na yàlla gën leen a dëgëral te gën leen a sàmm ñun ñooñu ñooy suñuy kilifa xëy na ñoom am nañ yeneen i kilifa mhm. waaye ndox du jéggi kàmb fi ak ah, feesul ah, ñooñu ñooy suñuy kàmb ñun mhm. te mënuñu leen a feesal ba leen di jéggi di dem feneen kon ñooñu nañ gën a yàgg mhm. gën a wér te gën a dëgër tey ñaanal it mbokki taal bi yiñ fi fekk xam nañ ne Euh, li ma wax léegi euh, Serigne Touba kenn la. Mhm. xam nañ ni it maam Cheikh Ibrahima Fall kenn la. Mhm. moo tax it bañ fi dalee ñëw ba tey. Mhm. wallaahi bu ñëwee da nga ku ku ñu xamul da nga yaakaar ne ñun ndiireen lañ dëkk. dëgg maanaam ku ñëw fi taxamoon. da nga yaakaar ne ñun ndiireen lañ dëkk. ndax lépp dañ ñu koo jox. kon li Serigne li nga doon wax léegi nag sama taal euh, li Serigne sama taal bi yëpp benn lañ. li firnde la li firnde la. waaye it dara la si liggéeyal sëriñ Touba waaye it lu ci tuuti la. xam ni lu ñu man di def ñun taalibi Serigne Touba yi lu dul ànd nekk benn gënalul Serigne bi fii liñ fi toog yëpp ñoo koy lekk waaw xaas biñ fi dajale naan gi yëpp ñoo koy naanaat mm. waaye li Serigne bi bëgg si ñun mooy yow boo làmbee sa bopp daj ma mm. su ma làmbee sa bopp daj kii loolu la Serigne Touba rawee ñëpp te ku dul moom amoo loolu. dëgg la waaw di jégaluwaat bu baax. macha allah kaddu yi leer na. te it maanaam ci xol la jóge te lu jóge ci xol dellu ci xol waaye waaye nag kenn du jàmbaar ja maam si di faal Ibrahima ni ko sëñ Moussa Ka waxee yéen doo liggéey fanaan ne root gaay nelaw ba naan xuréet ba luy ginaar ni kurkuréet moo ko xewal daawul doxi jaara maam si di faal Ibrahima di leen jaajëfal lu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Pour avoir des informations claires, fiables et rapides, ci lépp lu soxal diine ak yoonu murit. Tout ce qui concerne l'actualité nationale et internationale. lépp lu soxal xibaar yi biir réew mi ak bitim réew. abonneel gaaw ci ta chaîne ASG Production. Ahmadou Sow